الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الذي خلق الارض وشقر لنا فيه الانهار احمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نيويورك كامل ورنا نيو منا تجي سوره anaam daanaka paas bu mujj bi fi muy jeexee ci aaya cent cinquante neuf wala cent cinquante huit ñu taxaw foofu def benn muxaddima balaa ñuy ñëw ci li ñu bëgg waxtaanee doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla dafa wax ci alquran wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni dama bind nit ak jinne wala jinne ak nit ndax boo xoolee fii lu tax mu jiital jinne yàlla lu mu jiital rek moom moo jiitu boo xoolee ci wàllu doomu aadama déggam ak gisam nga xam ne doomu aadama dégg lay njëkk def wala ki yàlla ay créature am nit dina nekk ci biiru waajuram di dégg moo tax tout le temps da ngay dégg mu ne samihim wa absaarihim maanaam dégg lay jiital ci alquran doog indi gis parce que dégg moo jiitu fii tam nga dégg mu ne wa maa xalaxtul jinna dama sàkk jinne yi wal insa daal di mujjee nit ndax jinne yi ñoo ñu fi jiitu jinne yi yàlla bind na leen ñu nekk ci àdduna te boobu doomu aadama existé wul dama bëgg ñu déglu bu baax ndax ñu xam ñu xam fan lañ jëm jinne yi dañu nekkoon ci kaw suuf di mooy yàlla di mooy yàlla mennum iblis moo nekkoon seen biir di jaamu yàlla dañ doon tuur deret di reyante maanaam xeetu mooy yàlla boo xalaat rek ñoom jinne yi moom la ñu nekkee woon fii ci kaw suuf nekk fi ay ati ati at yàlla na mu bind suñu maam aadama waaye nammeelu bind bi yépp mooy correction bi nga xam ne jinne yi moom la ñu nekkoon xëy na bu doomu aadama ñëwee dina ko dina ko corriger moo tax boo xoolee histoire bi suñu imaam moom mu ngi ko doon jàng waaye gënoon na yaatu bu ñu demoon ci suuratul baqara bi yàlla daan indi jaa'ilun fil ardi xalifa léeg-léeg nga dégg benn borom xam-xam mu mu firee indi jaa'ilun fil ardi xalifa yàlla dafay wàccee ku ko représenté ci kaw suuf déedéet yàlla kenn du ko représenté kenn mënul wuutu borom bi subhaanahu wa taala kenn mënu ko wuutu au contraire yàlla moom moo ñuy wuutu moo tax boo xoolee ñaan bi yonent bi saa salaam jàngale nit ki buy tukki ci biir ñaan bi yaa ngi dégg mu ngi naan yàlla maa ngi dem maa ngi lay bàyyi sama ginnaaw nga wuutu ma parce que yàlla rek moom moo ñu mën a wuutu ñun mënuñoo wuutu yàlla kon yàlla sàkkuñu pour nañ ko wuutu ci kaw suuf déedéet xalifa boobu mu wax mu wax nuñ koy déggee mooy ñun ñooy wuutante. boo xoolee génération suñu maam aadama ak waa këram dañuy dem beneen génération ñëw ñu dem beneen génération ñëw ba suñu génération ñëw wuutante boobu ñuy wuutante par génération moom la ñuy déggee inni jaaxalun fi ardi xalifa waaye duñ ko déggee ñun dañuy wuutu yàlla déedéet ñun ñooy wuutante ñun ñii tey suñu génération bii ñu nekk nii xamante léegi ñu yàlla jëlee ñu fi indi suñuy sët seen génération nekk fi kon inni jaaxalun fi ardi xalifa wuutante boobu lañ koy déggee. waaye yàlla bi mu nammee loolu ñoom malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu ñoo ñu jiitu ñun ñoo ñu jiitu jinne ñoo jiitu jinne yi ñoom fekkee nañu moo tax ñoom si saa si dañ tontu yàlla atajalu fiiha man yusuf man yusudu fiiha wa yasfiku dima xanaa do- dooñ ne da ngay wàccee ñoo xamante ne dañuy ñëw def comme jinne yi ndax jinne yi ñoom li ñu fi nekkee yoon mooy tuur deret waaye di yàqante seen biir may laajte ndax tey jikko boobu noonu malaaka yi su lu ñëwoon ci jinne yi te fekk doomu aadama ñëwagul ndax ñun daluñu ñun tey ndax nekkuñu di tuurante deret ndax tey duma xool nekkinu diw arrangé wu ma rek naa ko éliminer naa ko effacé waaye yàlla ci xiin ma sàkk doomu aadama nam mën a ci defar koo xam ne day mel ni mën nañ jël exemple yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne jikko yu rafet yépp ci moom la daje nga xam ne moom rek doy na sëkk exemple ci yàlla li mu bind yépp justification bi leen yàlla ne inni alamu ma la taalamun xam naa lu ngeen xamul mu sàkk suñu maam aadama daa di koy xamal moo tax doomu aadama xam-xam dafa baax ci moom savoir bu amul ci doomu aadama doomu aadama mënul nekk moo tax ci saa si wa allama aadama la yàlla indi kon xam-xam dafa war a nekk loo xam ne yitte la ci doomu aadama nit ki warul dund rek toog nii di lijjanti lu mu lekk ak lu mu naan wala borom kër boo xam ne waa këram lijjantiwul lu ñu lekk ak lu ñu naan da ngay gis borom kër boo xam ne day xëy du yendu këram bu gontoo ñëw lu muy lijjanti du ne na xale yi julli nañu du ne na xale yi nangam nañu ci jaamu yàlla ndax lekk nañu wala ndax naan nañu lay lijjanti te loolu taxu woon yàlla bind donte nag moo ñuy tax résister pour ñu mën a def mission bi mu ñu wax waaye du loolu mooy objectif bi dañu xool liy dundal suñu ruu bañ a concentré wu trop liy dundal suñu yaram ndax suñu yaram yi fu muy mujj mooy ay sax lay mujjee kon histoire bi day gudd buñ ko jëlee topp waaye foofu luñ ciy jublu rek mooy ñu xam ne yàlla dafa am lu tax mu sàkk doomu aadama tey représentation boobu noonu utante boobu ñu war koo justifier nuñ koy justifier ci li tax yàlla binduñu lan moo tax mu binduñu ngir nañ ko jaamu ñu gën koo dégg bu gën a profond nañ ko wéetal ci jaamu bi moo tax nga dégg léeg-léeg ñu naan la wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yuwaxiduuni yàlla bindul nit ak jinne loolu nañ ko wéetal bañ ko bokkaale boo déggee suñu ilmaan aaya yu mu jàng jàng na aaya yoo xam ne romb na ko yàlla di di ŋàññ ñu koy bokkaale la in ashraku la xabita anhum maa kaanu waaw bëri na ay aaya la in ashrakta la yaxbatan na bëri na kon yàlla bëggul ko koy bokkaale mooy bàkkaar bi gën a mag suñu maam aadama man li may gën a tiital ci pa- ci passage yi benn paragraphe kese la moom de benn bàkkaar def yàlla génnee ko àjjana tey ñun suñu mbébét yëpp delluwaat àjjana la yan bàkkaar la ñuy def est-ce que mën nañ ko jël jël balance teg ko teg bàkkaar bi maam aadama def moom de dañ ko dem bu lekk garab bi mu lekk ko moo ko génnee àjjana ñun tey ay bàkkaar yu est-ce que suñuy bàkkaar posé nañ ko ak par rapport lekk garab bul lekk garab bi ah ah waaw fàtte ñu génnee ko àjjana tey mu war a suñ ñëw fii yonent yàlla Moussa yàlla daf ko bindoon mu nekk koo xam ne ko am fit la moom ci yenn xisa xëy na leeru ma ndax gisuma para paragraphe bi mais dégg naa ci yenn siira yi même malakal mawti bi mu ko doon bi mu koy jël si daf koo poñe ndax fit gi mu fit gi mu amoon tëgg ko mbéj ba ba mu dellu moom ne ko sa jaam bi dafa mel ne buggul ñëw ci jamono ma xëy na gars yi dañ ko nettali pour wane fit gi mu amoon waaye bii moom dafa leer naa ñu mooy yàlla wane la na ko yonent yàlla Moussa yonent yonent yàlla Adama suñu maam Adama bi ñu rencontré ñoom ñaar Moussa lu mu ko njëkk def mooy sëq poñe li ñu nekkee yépp yaa ñu ko yóbbee xëy na amaana bu lekkoon garab bi ñun ñëpp àjjana la ñuy juddoo waaye lu lu lu lu aadama mën ci ci programme yàlla la ñuy sébanaa illaa ma kataballaahu lana amul dara loo xamante ne dinañ dal lu ne yàlla def na ko programme bu yàgg aadama loolu la tontu Moussa finalement mu mujjee yay sax yonent yàlla Moussa kon mënu ci dara waaye nañu xoolaat suñu diggante ak suñu borom xool li tax yàlla binduñu ñu taxaw ci loolu loolu moom moo ñu war pour ñu delluwaat àjjana bi ñu jóge suñu deful loolu wallahi beneen kër mooy ñëw te kër googu noonu nekkul woon suñu destination yàlla bi iblis mi féeteerlu moo tax mu defar safara waaye iblis dàggasante bi muy dàggasante borom bi subhanahu wa taala dem na ba xamal ne ko ne ko safara bii de dinaa jël lu ëpp ci ñoom ñii tax tey nga génnee ma sa nguur gi yóbbaale leen ànd ak ñoom te iblis wax na dëgg ndax yàlla si boppam moo dëggal ne iblis wax na dëgg kon nañu moytu li nga xamante ne moom mooy iblis moom mooy suñu noon waaye nag lu tax ñu indilew leen aaye bii nii nekk ci li nga xam ne moom mooy anaam ci jeexital bi inna lazina farraqu diinahum wa kaanu shi'an lasta minhum fi shay fii dañu war a bàyyi xel bu baax a baax seytaane lan ban bàkkaar moo ko gën a intéressé mu wóor ne ko bàkkaar bi su koy defloo nit ñi am na assurance dina yóbbu ñu bëri safar chaque ngoon iblis day feete moom ak waa këram di décorer ñi nga xam ne ñoo doon def liggéey yu mu leen sant ci doomu aadama yi waaye da nga gis benn seytaane day ñëw ne ko man de fekk naa lu mel ni Abdallah di julli yàqal naa ko julle mu ne ko waa baax na toogal ne Abdallah de tere naa ko mu bañ a woor mu ne ko waa toogal ne ki mu gën a kontaan mooy koo xam ne dafa ñëw ne ko tàqale naa ay nit lu mel ni tàqale naa jëkkër ak jabar tàqale naa ñaari xarit yuy ànd tàqale naa tàqale naa tàqale naa moo tax am na kenn ci sëtam yi ku ñuy wax xinda moom toujours moom la ñuy solal couronne d'honneur bi ndax sëy boo gis mu tas moo ko tas papa papa ak doom boo gis mu tàqalikoo rek moo fa ne moo tax toujours chaque ngoon seytaane moom lay solal couronne d'honneur bi ndax loolu loolu mooy yitte iblis ci loolu la yaakaar ne yàlla ci la ñuy dugal li nga xam ne mooy safara ànd ak moom moo tax boo xoolee surtout Ali Imran histoire waa muhajirun wal ansaar nga xam ne ñoom dañoo bañante woon ba ku nekk yaakaar yaa gën sa morom yonte bi mu ñëwee tàqale tàppe seen xol ñu nekkaat benn yàlla dafa wax ci Ali Imran demoon na ba ñoom ñu jege paxu safara pour dugg fa waaye yàlla moom moo leen dimbali boolee nag yonent mu jubale leen def leen ñu nekk benn looloo leen génnee ci paxu safara bi ñu naroon dem kon tàqalikoo bi ñuy nekkee moo ñuy yóbbu safara yàlla wax ñu ci alquran ne inna lazina farraqu diinahum am na ñoo xam ne dañoo tàqale seen diine mu génne ci boppam moom bukkutul sax diine bi moom yàlla ndax diine bi yàlla reconnaître mooy al islam inna diina inda allahi islam diine boobu mooy diine bi nga xamante ne dañ koo war a jàpp ñun ñëpp ñu nekk benn waxtasimu xablillahi jamian lu mu si teg wala tafarraqu bu leen tàqalikoo waaye tey nit nit ñi ñëw tàqale seen diine def ko ay pàcc def ko ay diine yu bees kii naan man nii laa tudd kii naan man nii laa tudd kii naan man nii laa tudd yàlla ne lasta minhum fii shay nekku leen ci dara nekkuñu ci dara te boo moytu tàqalikoo boobu fan la ñuy yóbbu mun nañoo dem di ñu yóbbu di ñu yóbbu bañ nekk ay mushrik moo tax bi mu waxee rek inna alladina faraxu diinahum wa kaanu shi'an lasta minhum fii shay dafa indi histoire Ibrahim moom mi nga xamante ne mooy papa yi ñuy wéetal borom bi subhaanahu wa taala fàttaliñu Ibrahim xamal ne Ibrahim nekkul woon ñoo xamante koo xamante bokkaalekat la woon luñ ciy jàng mooy tàqale diine bi dina dem ba yóbbee ñu génn fi Ibrahim tegoon tànkam te ñun diine Ibrahim la yàlla toppaloo yonte yàlla Muhammad moo tax yooyu ay jàngat la yoo xam ne nit ñi dañ ci war a bàyyi xel ñu xam ne suñu diine bi benn diine la te moom la yàlla reconnaître suñu maam aadama ba yonent yàlla muhammad ñoom ñëpp benn diine bi la leen yàlla jox muy al islam joxu leen leneen dul loolu te moom mooy bokk mooy wéetal yàlla bañ ko bokkaale kenn te topp yonent bi la yàlla bi la yàlla booleel nañu góorgóorluwaat si suñu bopp xoolaat suñu diine ñu bañ a topp ñall yi bu ñu nee ñall yi nag yonent saa salaam moo ñu ko njëkk xamal moo ànd ak saxaaba yi jël jël bant bi mu yor tracé benn trait ne yoon bu jub baa ngi nii ci biir même yoon bu jub boobu mu def ci ay yeneen trait ay ñal yoo xam ne dañoo collé si yoon bi mu ne yoon yi yëpp ay yoonu seytaane la mooy ñal bu nekk am na kenn ku mu fa teg koo xamante ne mu ngi dévier nit ñi pour ñu bañ a tegu ci benn yoon bu jub bi léeg-léeg nga gis benn kàccoor boo xam ne bëgg tàqalikoo wala bëgg nekk ci pas-pas gi mu nekk bëgg koo défendre lan la lay wax mooy yoon yi bëri nañu du dëgg yoon yi bëri wuñu yoon yi benn yoon la te ñu ngi koy wax chaque jour bu ñuy julli ihdina siratal mustaqim benn yoon le chemin droit du les chemins les chemins seytaane moo ko indi taf ko ci benn yoon bi waaye dévier nit ñi ku ci nekk nag am na foo xamante ne fa la lay jaar moom yàlla moo may loolu capacité boobu seytaane bu la xencoo rek xenc sa bakken rek dina xam ne kii ci bokkaale laa ko war a jaar kii kat ci njaaloo laa ko war a jaar kii ci fen laa ko war a jaar non kii moom aw ma fenn fu moo ko mën a jaar ci yi dafa xër ci diineem diine la may jaay naa ko fekk si biir diine bi fa laa koy jaar di la sosloo ay mbir ngay créer ay mbir yoo xam ne yonent yàlla Muhammad santaane wu ko woon su ko defee kenn du mucc moom seytaane amul lu muy perte kon nañu góorgóorlu ñu càmmaat suñu bopp xoolaat suñu diine te amul lenn lu ñuy benn suñu diine loolu li nga xam ne moom la yàlla ñegee yoon bi muy topp yàlla topp yonentam bu fekkee ne dañuy woote nañoo bëgg yàlla boo bëgg yonentam fii tey koo fi wax ne bëggoo yàlla bëggoo yonent bu mere la koo ko wax mu mere la moo tax yàlla ne in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum zunubakum kon bëgg yàlla du si làmmiñ waaye mooy topp ku ñuy topp mooy topp ndigalu yàlla bàyyi ay tereem te royal ko yonentaam bi mu ñu yónni yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annar allahuma balligna laylat alqadr wa sali allahuma wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain